pari foot bu ma gisee xale yu bëri ñu ngi koy joué parce que dañuy dem ba benn instant dañuy perdre xaalis duñ mën a am ñu obligé dem joué pour mën a gagné dara. mas naa ko joué benn yoon. dama ñàkkoon xaalis. nga xam ne bu ma joué pari foot dinaa si génn. boo ko mokkalee mën nga si am xaalis mais man moom mosuma si gagné woon. ticket 300 laa jëndoon te dama ko mujjee perdre daal. mokkalu ma la si en tant que jeune bëggoon naa daal comme ça ku fekk di dem ba joué ay pari yu mel noonu nga maîtriser ko bu baax. balaa nga ci dugg ak di xam yan conséquence moo la ci mën a fekk yu mel noonu conseil bi mu koy jox mooy xam nga bu soxla xaalis mu bañ ko defee noonu mu dem gis ay parents am wax leen ko bu fekkee am nañ si ay lii ñu dem ñu mën ko see génne bàyyi naa ko bu yàgg bàyyi naa ko loolu laay diggal sama morom parce que carte xaalis la doon te tamit carte mooy loolu baaxul baaxul baax moytu di jouer mooy de 18 ans yi naa ñu toppatoo seen jàng rek te bañ a topp carte gi tamit ba seen bopp ñoom la concerné moom wax dëgg yàlla ñoom ñuy joué daal ñoom la concerné lu ñuy doyee xaalis bi toppatoo seen jàng rek moytu di joué lu bari pari foot bi